Euh, dañoo amee benn lu ñu naqari muy ay terrain yoo xam ne euh, Abdou Mbacke Ndaw daf ko jël ci ñun mu plus trois cent cinquante parcelles yoo xam ne Iba Guèye moo ko lotissé woon ànd ko ak ñi mu ko war a àndal ñëpp ba kenn ku nekk ci ñun euh, jotoon ay kayitam ñenn ñi jot nañoo dem Jurbel def seen ay mutation waaye dañu toog benn jour rek ñu jékki-jékki gis waa ONAS ñëw di maasale borne yi nekkoon foofu. Euh, biñ bindee lettre préfet ngir mu intervenir ci affaire yi woo na maire wax ko ko waaye jusqu'à présent fi ñu toog amuñu benn réaction bu jóge ci ñoom te yaakaar na nit booy jël ay terrain ñoo xam ne dañ koy attribuer ci nit jox ko ko war nga ko mën a dédommager wala boo ko mën a dédommager it nga jox ko feneen euh, boobu ba léegi nag yàgg na depuis 2019 ba léegi ñi ngi ciy dox di ci wax euh, la cay ñaareel ba mooy même onage foofu ñu bëgg a def bassin bi mënul nekk parce que li tax mooy fi muy jaar pour egg ci bassin bi sax warul mënul nekk parce que euh, nañ xalaat fi ko def ci biir dëkk bi la te ay nit ñoo fa dëkk di fa noyyi en même temps terrain yi nga xam dañ ko jël ci ay nit nga xam ne président fii nga xam ne domaine national la ci titre foncier état la bokk Abdou Mbacke Ndao ul benn sañ-sañ di fa jël ay terrain di ko neexale état wala mu koy neexale kenn di ko jox te problème boobu du Daaru Salaam képp Mbacke gépp la ñun nag bëgg nañ ko ñu dimbale moo tax ñuy alerte président de la république di ko woo ministre de ak képp koo xamante ne nii boo ci jàppee suñu aajo dana faju ñu ngi la ci yaakaar sonn nañ boobu ba léegi ñu ngi ciy daw guddi ak bëccëg suba ak ngoon liñ bëgg mooy nañu jox nit ñi seen xaalis dédommagé leen wa ilaa ñu delloo leen seen ay terrain parce que mënoo jël ay terrain yoo xam ne seeni i borom dañoo yor ay kayit nga jox ko waa ONAS ñu def fa bassin boo xamante ne ni ñu dëkk ci secteur boobu yëpp kenn du fi noyyi ba noppi nga jëlaat benn canal bu ko jaarale ci seen biir loolu du dëgg du yoon loolu moo ñu naqari tey ji ñu di ko euh, ñu di ko ñu di ko ñaxtu mënul teg fenn mënul mënul indiwul benn wax bu leer ne fu mu mën a teg tàngam ne fa la mën a sukkandiku ba jël terrain yi parce que terrain yi maire yi moo ko joxe maire bi mu koy joxe ñi mu ko séqaloon ci joxe bi ñu ngi fi euh, préfet bi muy woote réunion woon na chef de service yi fi nekk yëpp ci département bi ñu ñëw taxaw waaye ba fi may waxee yow amuñ ci benn lu ñu loo xamante mën nañ ca teg suñu loxo wala ñu teg suñu suñu bët ni lii mooy liñ liñ liñ sàmmante ak ñun wala liñ tënkante ak ñun ñu di ci alerte ñu ci woo président de la république monsieur Macky Sall su fekkee ne réew mi réewum yoon la nañ lii nañ ci daal di jublu nu mu gën a gaawe ñu lijjanti ñi ci ñi ci bokk kenn kenn ku nekk fa dëgg féete ku nekk dem dem sa yoon xam ne sonn nañ surtout waa Mbàkke maire bii fi nekk moom wax dëgg yàlla yàlla na jeexal ak jàmm ba dem ak jàmm ak salaam sonal na askan wi lool lool lool coowal suuf nag du fi jeex guddi du fi jeex bëccëg. waa bassin bi comme affaire bi Touba la concerné bassin bi ñun neexuñu d'abord parce que fi ñu ko def ay kër ba noppi maa ngi nii ak plan bi euh, euh, attestation yi maire joxe woon yëpp mi ngi ak man. bassin bi fi muy jaar neexuñu fi bassin bi nekk neexuñu parce que bassin bi ay këri jàmbur lañ jël jox leen ko ñu di ko def te dédommagé wuñu leen même état bu doon jël këri jàmbur daf laa war a dédommagé rawatina nag koo xam ne en tant que maire te fi domaine national la kon maire amul benn sañ-sañu di jël ay këri jàmbur di ko joxe. kilifa diine yi fi nekk kenn jiituwuñu ci parce que bi ñuy def loolu mooy sunu waajur moo fi nekkoon di xalifa nit ñi doon versé ñu booleen lotissement Daaru Salaam ak Mbàkke def ko benn lotissement lotissement bi Alioune Aïdara Niang préfet bi fi nekkoon moo ko constaté woon ak Diagne ba séddale suufu Kayel ak Mbàkke fi ñu séparé ak ñi ko waroon a teewe ñëpp ci ay autorité ñu teewe ko ñu def lotissement bi nit ñi verse seen xaalis trésor kon nit ñi jël nañ seen xaalis dugal ko ci gafak ak état état i Guèye moo fi nekkoon moo doon def lotissement bi ànd ko ak caw bi nekkoon urbanisme ñu jox nit ñi seen ay document ñu xëy xëy ñu maasale ko loolu moo ñu naqari bassin bi neexunu parce que bassin bi am na fa mu waroon a dem la tax ñu dàqaleen fi ñu ñëw Mbàkke ñun dañoo amul doole waaye neexunu buñ sañoon duñ ko fi def même fi mu war a jaar pour dem foofa it neexunu suñu joxoon suñuy kër moom moonu gënal suñu joxoon suñuy kër moonu gënal su fekkee mënuñu koo joxe ñu de demande seen su fekkee ne nag dëkk kumba nday am nday ah nan na ko wax Abdou Mbacke Ndaw daal xamuñu li muy def fan la ko teg. xol bu naqar ak xal bu xol bu tàng rek la am coom saa bu ne ndax teere yi ni mu ko nangoo bëgg ñoo jaay doole te doole moom def naa waruñu ko ëpp moom ndax moom moom war nañoo xam moom. te lii nag ganaa xam nañ ne am na suñ ko bëggoon a yóbbu ñoo ñoo ña bañ te mbir mu a la concerné kon liñ ci war a def dañ ko ci def li nga xam moom lañ ci yoon man may dañ ko def fi nga xam ne fu la ñu war a def itam mooy suñu mën dama fa nañu njëkk a dem xam muy kilifa gi ndax xam nañ ne moom buñ nee Touba ndox mu ban ndox mu ban dañu fay jëlee da ko yóbbu Dortlam loolu moom ci histoire yoolu mu rek xel du ko nanguwut moom donc li ñu njëkk dem mooy dañ dem suñu Muntaxa leeral ko ko wax ko ko ñu fa jógee nag ba ci président ko fa mën di doon daan maanaam daan ci taxaw nañ ci war a taxawee ñu ngi woo nag ñi nga xam ne am nañ fa ay teere ñoom ñëpp ñu ñëw boot suñu bu ñu ànd ànd seen ñoo ñun ak ñi nga xamante ne ñu ngi ñu ngi ñu ngi dox ngir ban canal bi am foofu ndax canal bi am foofu itam jaataar la jaar jaar gi muy daar jaar daaru salaam ak jaar gi muy jaar Mbàkke neexut kenn ndax Mbàkke ñoom mosu ñoom parce que problème international mosuñu ko am parce que suñu problème benn jafe-jafe ñu ko am te yooyu nag gis nañu fu mu am ci dëkk yi rek ci àdduna bi gis nañu yooyu tàmbali fa am kon nag yooyu yëpp daal nekk na ay naqar yoo xam ne boole nañ ko du ko xeex xeex bi nag tey lañ ko tàmbali waaw ñu ngi ci woo ñi nga xamante ne yi yitteel na leen yëpp ak Daaru Salaam ñu ñëw ànd sañ ci ak ñun di ci woon ñëpp